salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu dal leen ak jàmm ci seen euh, chaîne bu télévision bu Tawfekh Production nekk fii ci Touba ci quartier bu kër euh, Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi ci wàccaay màggal bi nga xamante ni dañuy am fii ci Touba. ñu fii ci këram doon uh, saytu lépp li nga xamante ni moo fi war am ci ay uh, uh, programme ci wàllu ay bis yoo xamante ni dina ko def ci tànt bi nga xamante ni nekk na suñu wet boo na gisee suñu ginnaaw ci nag yi nga xamante ni yeew na fi lépp nekk ci li nga xamante ni mooy ci wàccaay màggal gi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci biir Touba te moom mu àndee ko ak ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacké nekkoon ci moom nekk taalibe tamit ci ndongo taalibe yi donc dinañ ñëw ak yéen tamit ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu organisation bi ñu xamal leen lépp li fi war a am ci bis ci ay bis yoo xamante ni dina fi am ci ay programme ak lépp loo xamante ne dina fi am tamit ci bis yu màggal gi ah, ak ki nga xamante ne moom lañ dégg tamit wàllu programme tamit dinañ euh, sekk ak moom waxtaan ah, laata ñoo wax ak ki nga xamante ni mooy euh, sëriñ bi mu xamal ñu ay kàddu cant yi nga xamante ni moom lañ ñu euh, amal fii nga xamante ni mooy quartier mooy bu lépp ci wàccaayu màggal gi 18 safar bu édition 2018. Ah, Jëriñ boo ñu mënee xamal li fi euh, euh, war am ci ay programme yow mi nga xamante ne yow leen dénk lépp loo xamante ne moo euh, ñeel wàllu organisation bis bi Serigne di mooy Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arsida barke borom Touba doole maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di rawatina ñi nga xam ne mooy yéen waa Tawfekh Production gi nga xam ne yéen a ñëw fii ànd ak ñun liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak sunu jëwriñ Serigne Ousseynou kan fii ci nga xam ne mooy Touba Mawahibou di quartier euh, Serigne Saliou euh, Mawahibou nag quartier bi nag quartier la boo xam ne Serigne Saliou moo fi beroon ay dongay boppam yi nga xam ne moo leen defaral boppam ndax sëriñ bi daana wax ne tey am Saliou laa waaye jamono yu ñëw ay Saliou laay doon booy xool fii yëpp ak li ko wër ak njabootam fi nekk kenn ci njabootam nag di sëriñ Ousseynou kan euh, di liggéey katub sëriñ Saliou di liggéey jàmbaari borom Touba di nga xam ne fu sëriñ Touba wootee ci ab liggéeyam euh, mu ci jéem a def lamumën ak la mu ndax euh, màggalu Touba ndigalal borom Touba ndax borom Touba moo waxoon maam Thierno Ibra na ngeen toog néeg ma ma ñëw damay liggéey ji suma ñëwee ngeen añ kon lii lépp day firndeel añ bi loola waral nag sëriñ bi boo xool sëriñ Ousseynou Kane ci wooteb sëriñ Touba boobu moo waral mbooleem lu sëriñ Touba ci diggante boobu muy ganaar la ko dalee ganaar ba ca gëléem jamono ju ci nekk ak waxtu wu ci nekk moom muy def yitteem jëpp ci loolu sëriñ Touba ndax lu sëriñ Touba lu ci nekk dañ ko ko wara defal moom nag mu bokk ci jàmbaaram yi nga xam ne mbooleem yooyu sëriñ Touba tuddoon yëpp da koy jéem a fàggu ci bisam bi loolu nag moo waral gétt gi ngeen fi gis daaw uh, mi ngi ko doonoon uh, ci ay fukk ak benn uh, lenn lu ci nekk ren nag lenn lu ci nekk mu def ko fukk ak juróom-ñeent dolli ci benn giléem kon loolu lépp tamit di wanewaat tawféexug Serigne Saliou gi muy waat ne màggal gi feeg demuñu ba màggal ba noppi desiti ñam yi di mel ne ay naafi gerte màggalagul kon loolu lépp ci la taalibe borom Tuubaa yi jëm lool loolu nag moo waral organisation biñ koy doxalee jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk mooy màggal gi moom yor-yor la ndax màggal gi euh, sëriñ bi yor-yor la daje woon ak i noonam ca jeewal la yàlla doon wax iblis ba ko iblis ba ko ba mu ko génnee ca nguuram ga ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan Sëriñ Tuubaa tamit bi mu yeggee jeewal la waxoon ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ayasaminillahu anta jeewal moo tax programme màggal gi fii ci bu di ci ànd kilifa gi Serigne Ousseynou Kane moom it yor-yor bi la koy dundal nga xamee ne yor-yor boobu la Serigne bi yeggee woon jeewal yor bi la programme bi tàmbali li commencé 9h jëm kaw la programme bi tàmbali fii ñu dundal ko fi ba julli tisbaar ba tisbaar gi weesu ñu tàmbali xéewal yi daal di berndé jëmale ko ñetti fan yi nga xam ne moom la Serigne bi wax ñu màggal ko ko kon loolu moo fi programme boo xam ne. Eh, loolu lañ waajalagul waaye nag eh, sëriñ bi jamono ju ci nekk day wane boppam day wane boppam waaye fii ci Mawahibou daal ci yor-yor bi moom amee eh, jotaay bés bi amee yaakaar la ndax tawfeex rek moo fi wàcc.